Je m'en vais vous numéro 36. Le lundi 6 avril 2020, le ministère la Santé et de sociale a les résultats des examens virologiques suivants. Sur 95 tests réalisés, 4 sont revenus positifs. contacts suivis par nos services et un cas issu de la transmission communautaire. 10 patients hospitalisés ont été contrôlés donc guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 226 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 92 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, on a 131 cas sous traitement. Le ministère la Santé et l'Action sociale renouvelle à la population sénégalaise son appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.